naa ko bindaloo poème si digg penc alaaji dégg nga Thierno. li muy ragal ne mën nañ ci dem. ci ndax mi ngi nuroog mise en scène. waaw bon euh, d'abord. Euh, sa xel teeyu ci yow it loolu mënul nekk. bon euh, c'est une possibilité parce que li ma li ma wérte wóor mooy ñi ma xam muy Karim Xurum Xaq comme ni dof ñu njekku kenn. te eh, foog naa affaire bii nii amoon na lu yàggul Karim eh, foog naa dafa tegle trois à quatre mandats de dépôt. Eh, bii nii je pense ci affaire dëju imam Ndaw bi la woon ah. vidéo la comme ni ko kilifa waxee donc il y a lieu de faire aucune instruction ci mbir bi mais jamono boobu noonu. Hmm. ay ay ay rapport demoon na di ko ñaan palais de la république la fale la woon mais du looloo ko taxoon jug mais dugalaal nañ ko ci woon. waaw mais en tout cas Karim waxoon na ci. waay waay nee na yebal nee na yebalul kenn. waaw kon ce sera encore la même rek. kon donc euh, di lañ désavoué désavoué woon à l'époque suñu delloo waatee est que ñoo delloo seen bopp koo xamante ne yow dem nga di ko ñaanal njekk mu génn ne la bu ma ñaanal ci njekk mais sax tolluñu foo xamante ne nii. nit ñi dañoo war a bi saa wax nii laa gën a gëm. waaw waaw dañu toog man loolu laa ma ne bàyyi bi ñuy wax désescalade tamit il faut nit yi. nit ñi am ko tane am ñu bàyyi. waaw non nekkuñu ci loolu. defaraat wax yi. bañ a tàng dënd ngir. cest à xam na ni actuellement situation bi euh, fi muy gën a dem moom lay gën a déshonoré parce que ce serait une première dans l'histoire ñuy compter plus de mille et quelques euh, acteurs politiques yu nekk en prison yow cinq mois moom moo la dese nga am bilan. immatériel bu catastrophique comme ça euh, nit dof yow koo xamante ne dafa def vidéo xëy suba jéggalu mais Penda ba jéggaluwul ba léegi hmm. ñii di saaga sëriñ si euh, parce que euh, tu as euh, sëñ Habib li mu dund temps yi nii. ay ay ay kilifa non non mais Tange Tange la c'est un enfoiré. kilifa non non non ah, non pas besoin ngay wax. si si si ci ci jàmbur nekku fii. léegi léegi ñoo ngay profité waale rek. ji ji jégalu tu vois donc kon situation. situation ne <laughs> ñu ñu ñu comprendre que ni man li ma gëm mooy waa ji moo bëgg a def glace. Hmm. président waa comme que moo bëgg a def glace euh, léegi il faut ut ay mécanisme yoo koy kiiwee parce que ñoo xamante ne barki dem boo njaay nga ñëw di ñaanal nit ki ñekk kooku génn désavoué la tey nga bëgg a ñaani jiwaat njekk et que ñaan njekk pour la bu dee ku tooñ la ñuy ñaanal njekk ñi tooñu ñu kenn hmm. tooñ ñu kenn donc euh, bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee euh, la laayu nit dof yaa fi gis laay bi gën a incendié ci loolu noonu te et puis pourquoi instruction et pourquoi jamais un procès man loolu daf may jaaxal c'est-à-dire instruction yooyu ñuy def du ma sa mujjee ci procès nii rek lay mujjee après dañuy ñëw ne woy waa Simpix ñëw nañ waxal nañ journaliste bi génn na waa euh, ay rappeurs ñëw nañ kese après ñu génn quoi parce que boo boo boo leen tegee ci procès lan ngay wax. d'accord qu'est-ce que tu vas leur hmm. c'est ça le problème quoi man jàpp naa aussi que. Maître Clédor. Hmm? ci maître Clédor waaw parce que man moom dama mës a wax ne grève de faim gisuma njëriñam Ousmane Sonko euh, bu dee dafa am euh, loo xamante ne engagé na ko comme combat mënul dem ba ëllëg muy gën a tal feju que continuer ça jeune ne vois la pertinence de de de grève de faim wax dëgg yàlla gisuma ko gisuma aussi. Euh, ban impact la ci doon am donc kon si a pris la décision de de suspendre euh, dañ koy dañ koy rafetlu mais foofu tamit foofu tamit euh, foog naa ne gars yi ñu ngi porox ndolu buñ ci génnee. waaw waaw hmm. oui. PAM sax PAM sax désolé. <laughs> man man déglu naa waxtaan bi de fond en comble mais dafa am ñaar ñaari aspect yu ma yu ma ko gisee benn bi. su ma accommodé woo ci lii kilifa wax ak Baye Moussa ñi nga xam ni ñu ngi leen denc ci kaso bi yàlla na yàlla génn leen ñoom ñëpp euh, ku ñu si jàpp te jàpp bi jaar si yoon yàlla na yàlla sàmmal la muccal la nga rectifier hmm. ku ñu si jàpp ci jaay doole ñi lay jàpp ci jaay doole bi yàlla na la yàlla jàpp ñoom <laughs> ñi ñiy jàpp ci jaay doole ak ak tooñ ak tooñ nit sosal ko jàpp ko ñiy def loolu yàlla na leen yàlla jàpp xulil xulil ñàpp parce que askan kenn du leen sonal tey si je suis sénégalais citoyen maître Moussa Diop ne il est candidat mais maître Moussa Diop du ma forcer pour ma voter ko dafay wax lu may convaincre pour ma ne ah je vais pour lui et librement waa léegi su fekkee ni maître Moussa Diop daf ma bëgg a forcer par force ma voté ko nan laay def même suma ci mënul dara dama naan waa léegi sax voteetu ma du dëgg dañuy dañuy yóbbu Sénégalais yi ci benn gamme benn gamme boo xam ni et c'est ñu yóbbu ñu à niveau haineux c'est-à-dire bañante te te wax dëgg yàlla Sénégal mosuñu àgg foofu yow yaa ngi wax Abdoulaye Wade Abdou a ngi ci des il s'est passé énormément de choses mais am na fu mu doon yem un temps soit peu tuuti. ci ci diggante nit ak nit jamono bi Sénégal kenn mësul woon xalaat ci àdduna sénégalais <laughs> yor arme xool sénégalais délibérément tiire ka ñëpp teg seen bët loolu amul fi woon lu tax mu am bari na ay réponse spécifiquement ñi nga xam ne dañ leen a te téye boo xam ne tegul si yoon mooy jaay doole bi rek muy nit dof koo xam ni wax na wax bi ëpp mu ñëwaat jéggalu du jéggalu na Birame Souleye kilifa bi nu ngi bi mu jumee du dafa jéggalu c'est grand de reconnaître son tort et de l'accepter et de l'admettre et de dire noo ngi jéggalu jeex na mais quel est plaisir li muy wax sànq quel est cette ce ce ce ce ce capricieux là qui qui a tendance à à se faire plaisir lui-même ci ci faire mal aux autres loolu lan la ci lan dangay wax ak ñoom sax te bari na ci sa mbokk yi kilifa bi. waa APR yi danga nga ciy wax ak nit nga xam ko mu xam la koo xam ni démb da daan doxee kolobaan ba yoof yow ngay dox di lijjanti sa bopp moom muy dox nga koy romb xulil mooy ñëw tey naan la wooy dama lay tëj baa ko waxee kamel ni man mën na la kutaabaal <laughs> non c'est-à-dire c'est yaa sa yaa dafa am benn benn genre affaire boo bu am Sénégal boo xam ni c'est extraordinaire nan ngay xoolee nit conseiller municipal ne ko ah. la nga takk xool ko gis ne conseiller municipal la nga ne da nga koy jàpp. sa bos ngay xaar bi bii de barke bàyyi laay alayhi xalifa Ababacar ak Alaaji Fàllu ak maam Baye ak maam Bukunta Amari Ndaak Amar Jëgër Amar Dem Amar Siise Pir El Hadji Ibrahima Saaxo El Hadji Malick Buy Aliou Siise Jaamal barke salaatul fatiha laa la wax Cheikh na Cheikh Saad bu Chérif wa xeer na Cheikh Abou Khadre Jeylaan Cheikh na Cheikh Matiyaan Vaadal nii la ma kaa takke dégg naa wax bi maître c'est une infraction waaw dafa am maanaam dañuy jàpp sénégalais yi buñ la xoolee jaay la doole kii la dox dem pour lan. ah alhamdulilah parce que amul sens. bu ko parquet bi suivre sur ça suivre la police parce que police moo ko interpellé. oui ñu yóbbu ko devant le parquet déféré ko donc. jox ko juge d'instruction juge d'instruction la remise en liberté. oui mais juge bi lan lay wax day rus sax même bu ko waxul wala wane ko dina am kersa. te bari na ci kilifa yii di dox ci droit beeg ñu ci des. kaas yi wéetal mën na la waa mais parce que ils ont un patron c'est le parquet au-delà la ca kaw ak la ca nekk ak lépp. indépendance justice mën nañ ko wax dix milliards d'ans. Mm. mais y toujours luy xaw a gênant loo xam ni dafa diis mais damay wax ni ñaar ñi nga xam ne ñu ngi leen di ñaanal njekk defe naa nit dof mi jéggalu loolu ñaan njëkk la. ki ki def ne ah maa ngi siy tuub vraiment li ma wax ëpp na kooku ñaan na njëkk. Hmm. mais dañ dañ ko jaay doole. Karim moom Abdou Karim xam ngeen ko. moom oh. di buñ ko doon tëj fii ba abadan ilaa Karim ba ma xam man. bu génnee jaar du ñaan kenn njëkk. léegi nag ñi ko def aussi. mën naa am njort bu rafet. ma ne kat gars xool nañu ne bon finalement nañ dem jéem waxtaan parce que alpha ou waxtaan day am avant wala mu am après loolu aussi mënuñu leen ko reprocher parce que jéem la. ki nga xam ni mooy def kay te li muy def tew ko si yoon kooku la nit ñi war a ñaanal yàlla mu soppeeku delluwaat ci ci yëfi nit ci ne ah tëjkat c'est l'extrémité kilifa bii du Paris la nekk nekk ci baro Paris mais maître yow xam nga ni France du ñu jàpp nit ñi ci Mali foro c'est l'extrémité cest à mooy dem nañ ba amuñu choix mais Sénégal xaaf képpi nguuru président Macky Sall di c'est-à-dire loo xam ni askan bi ñoo ko moom dénk ko président ne ko bon monsieur le président voici vous avez tout monsieur le président Sall vous avez vingt cinq millions par jour divisé dix ou onze milliards de francs CFA de caisse noire par par jour quand quelqu'un a ce privilège waay waay war ngaa mën a yéene nit ñi jàmm waruñu agsi fii donc je dis juste malheureusement nag loolu yëpp. te foofu faw ma ma ma ma cuq ci candidat bi toog sunu kanam au-delà de du juriste maître le présidentialisme fort bi nekk Sénégal sonal na tant que tant ngi ñëw nekkat ci logique gu présidentialisme fort président conseil supérieur magistrature nekk ki nga xam ni moo la nommé chef suprême waaw nekk buur carrément mais nii rek lañuy ñuy dundee. léegi nag mën nga am koo xam ni day élégant am ku moins élégant am ko plus élégant. exactement foog foog mu am lu mu bàyyi. looy bàyyi maître. foog mu am lu mu bàyyi. non bu ñu la xasee ba fal man je sais pas kii mais moi de 25 bu la la def defee parce que yàlla mooy fale mooy dindi ma nekk président du Sénégal je ne serai plus chef de parti. C'était dit dans les assises. Je ne serai plus chef de clan. Oui. Parce que le président de la République actuelle, le président Macky Sall, bu nekkul woon chef de clan du am difficulté pour jël décision bi. il ne regarderait que le Sénégal. bu fekkee deuxième mandat et dernier son bilan parlerait. y a de voilà ñii di wut euh, toog ñoom ñooy wax lan la ñu bëgg a def. mais ku toog ba pare liggéey. mais il suffit qu'il montre des choses lu ko woon Sénégalais di wane ni man lii laa def su ngeen bëggee ma continuer waat. mais deuxième chose c'est que mënatul nekk euh, conseil supérieur de la magistrature waru fa siège parce que dañu poser ay règles séparation des pouvoirs exécutif législatif judiciaire la le conseil supérieur de la magistrature est, est présidé par l'exécutif ça ne ça pose problème te de grands penseurs ont dit que là il n'y a pas de séparation réelle des il n'y a pas de démocratie mhm. donc loolu dañ ciy war a jouer mu leer parce que moom mu toog fa en tant que président la République exécutif ministre bi toog fa de la justice en tant que politicien di ko présider mais y a des choses yoo xam ni c'est pas bien donc réforme yooyu dañ ko war a def on voit aussi l'histoire de l'inamovibilité mooy le fait que un magistrat du siège mënuñu ko affecter mënuñu ko promouvoir mënuñu ko jox tàngal te neexu ko il faut mu doon son avis mais bon sur ce point également euh, dañu war a jouer vraiment parce que am dafa am ay affaire ndaw yu ñu créé ay consultat à domicile ak ay euh, intérim xaw ma lan ak yooyu jaar fa. teg la fa nga éterniser wu fa. c'est boo pose problème aussi di appliquer le droit à la lettre certains on les affecte mais di nga koy mbubboo nii pour des de justice de bonne organisation. un télico bu ñëwee ba Tambacounda ah, on a compris donc yàggu fa mu jël fa teg lépp def dem na yoonam. parce que ñenn ñi même ont démissionné de la justice comme le juge Dème donc dafa fekk ni fu ñu toll nii di war a def attention. sur affaire justice aujourd'hui les maisons d'arrêt parce que justice affaire si maison d'arrêt ci la bokk la politique carcérale bu ma déggee gii di naan bon paquetage fa laa déggee le mot la ñu bàyyi ko noonu parce que toutes les maisons d'arrêt sont sur surbondées mm-hmm. mais tabax beneen mais nañ ku di tabax yaa ci njëkk a dugg mm-hmm. man bu fekkee man maa ci war a dugg dina am parce que dinaa ko tabax pour que mettre les gens dans la dignité mm-hmm. voilà dañu leen foofu ñu garder benn local fii boo xam ne a côté du tribunal pour ceux qui doivent être jugés par exemple demain ou être entendus mais bu ñu paree ñu delloo leen la maison d'arrêt c'est de droit mais fekkee ni les gens sont dans une promiscuité telle que ku fa dugg génn même la gale tu chopes la gale ak yenn affaires yoo xam ne ce n'est plus de ce monde donc yooyu yëpp c'est des réformes yoo xam ne ñu ngi koy préparer euh, je pense que yooyu duñ ko bay le parquet aussi ah son waxuma indépendance mais le aux le parquet a une politique pénale annuelle. cest à ne ku dugg ci cercle bi ni liñ liñ lay appliquer les textes c'est pas à la tête du client qui s'appelle euh, nu mu tudd encore euh, mon cher Diop sama doom bàyyi ñu ne bon il nous casse les pieds sur les plateaux donc son cas ça keneen ñëw ñu ne mais c'est qui